a ngi am naa ndam lii tey amul benn leader ci département bi boo xam ne amoo ay moyen sa moyen bopp def ne Mouhamed Ciss mii dem Europe liggéey ba am teraangaam di ko sotti ci département bi ba ñu reconnaître ko amul keneen ku ko fi am te takkoon ndombal tànk wala nga lekk daray état loolu man rek maa ko am tiitaru ma nag de dama koo am ndaje mii tey jigéen ñee ko sélectionné defal ko seen bopp dajale ko xotti seeni otes dikk jox ma mbubb ñëw ba ci man ne ma dañ ma koy defal man sama yaram dafa daw ku ne xam na ne wootewu ma tey ndajam politique tey wootewu ma ndajem politique dama tàllal loxo ki bëgg dimbalee bëgg a jàppale ay jigéen tan xam lu woo kenn ku ma ci wuy si rek yow yaa gañaloo la Mouhamed nuyu naa la ñun les femmes de yàgg nañoo dégg say say jëf ci wa ci ci ci ci département bi waaye nag ñi ngi doog a jot suñu wàll astu mbay mii ak soxna bu Mbay ak soxna Aada Ndiaye ak ñi ci seen ginnaaw ñëpp ci les femmes leaders ñoom ñoo initié li teg seen produit marketing yi Adja Kumba Ndiaye maa ngi lay nuyu yow la fi waa ànd defar Sénégal yabal Sénégal ñor na leen gëm naa ko ndax fii tey puukare indiwu fi kenn bëgg base indiwu fi kenn bëgg dimbalee ak social laa woote ak waxtaan ci apaisement ak xam ne réew mi ñoo ko bokk dañ ciy waxtaan ba am solution rawatina fii ci département Mbacké Mohamed man ne maa mujjee jot ci yow fu ne gis naa la bokk naa 46 groupe ci département bi fu ne yow lan fay joobe yow yaay leader ci département bi xam nga CDS Mbaye Dagga su ma doon wax waxi politique damay wax sama leader président Pape Diop waaye tey Mouhamed mii mooy leaderu département Mbacké may nuyu docteur Ablaye Niang yabal na fi Cheikh Bass ak euh, sëñ Mbacké maa ngi koy nuyu di ko gërëm ñun nag dañoo munta sàmba mbayaan liggéey rek ka ñu ñor man jigéen ñii toog jàpp nañ ne man maay seen ministre de la femme ndax ba ma dooree fii ba tey lu ministre de la femme war a def ci jigéen ñi man maa ko fiy def jigéen ju ko ci jaaxle man ngay wër kon man ku yor bis bëgg koo bis dama naan la ñëwal ma bisal la ko woo ci ñi ma ci am mohamed bu la neexoon tànqam lu ma waaye nag bëgg naa département Mbacké bii bala fee kenn defati dara na la tàggu li nga am yaa ngi koy bokk ak waa département bi te tiitar woo wane woo groupe bu ñu ne tànqal sa nit ñi tànqal nañu ndax say jëf yu baax yow laa mës a gis ci leader nga jënd lu mat centaine de jas mètres jasneer dugg ci biir banlieue Touba bii di ko fa séddale ndax am na ñoo xam ne xamuñu luy jas neer sama classe gi nga dagg ko di leen jox keroog la nga ma marqué ba tey fii ma toog fu ma toll di la tudd namu leader nag taxul ma woo la ndax man ku ma xam-xam ne damaa bëgg président Pape Diop waaye ginnaaw da ngay def ci département bii di fësal say baax-baax ku woote ku ne du la teggi daf lay woo te yow ku la woo ci département bi nga wuyu ko xam nga nit ñi dañoo xàmmeetul kenn ak kenn ndax maa mën ak maay dara taxut a doon dara yow li nga mën ci département bi kenn mënu ko ndaw ñii la topp ah duñu ay baadoo la kenn fayu leen ñu di la waxal kenn ku ci ne dangaa liggéey ba am sa teraangay bopp maa ngi sant jigéen ñi ñëw ñëpp di sant samay bokk ndax man samay bokk laay waaja ñoom laay wàllee dañu ma bëgg lu ma woote ñoo cay njëkk guddi bu ma tëddoon ba xaaju guddi ma woote du ma ne sama ndaje ma dama caa am defet ndax samay bokk dinañ ma wéttali ak samay soppeek samay am di jaam maa ngi sant yàlla bu baax te gëm ne bis boo xamee ne dégg nañ ne Mariama ture mii yàlla dénk na ko benn ndombal tànk ci département bi benn jigéen dootul jaaxle maa ngi sant soxna Astou mbay mii nga xam ne dem na ba lijjanti ji ay financement li mu financé ci ay jigéen ëpp na 1000 personnes yoo xam ne kenn ku ne waaw tàccu leen soxna Astou mbay dafa jar a tàccu fu ma dugg rek financement tëma soxna Astou mbay dugal na fa loxoom ba financé leen maa ngi lay sant bu baax di sant sëy na bu sarak jii ñëw jàpp ci bis bi soxna Anta maa ngi lay nuyu tey nag ndaje mi dama ko wooteel département Mbacké les femmes leaders woote ko ñoom ci seen bopp dagg seeni ote solal ma ba ma rafet ñu ñëw ba sama kër ne ma yow leen koy indil ma Diop maa ngi lay nuyu yaag ñi nga àndal Mohamed ku la yeb ku ne dalaa fekkul ci département Mbacké bokk diggu tool taxut a yem dàgg yow li ngay def danga koo mën li ngay jëf ci département bi leble woo ci fayoo ci bor yeneen gan ñu war a ñëw waaye nag ku fi ñëwaat ku ne ci ginnaaw Mohamed ngay topp Mouhamed yow mën a woo wax. sawar te dama ciy kontaan ndax tey ku ne xam na ne. kii wër développement di wër social ma woote bisub social ak développement mu dagg yitteem yépp jóge dakaar tey une la ak si ndax bis bii nga xam ne les femmes leaders ñoo ko ñoo ko initié ñëw fekke si ko te ay bis yu mel nii di ko xaar kon kooku yaakaar naa li mu mérité ci département bi man du man maa ko koy waxal jigéenu département Mbacké ñoom ñoo ko koy waxal xam naa ne moom loolu man jarul ma ko ci soññ ndax xam nga ki dégg ne Mariama Touré mi ngi ci département bi di def lu rëy accompagner ay jigéen ñu bëgg a liggéey mu dégg loolu ay nitam woo ko ku mel ne Daouda Fall woo ko ca dakaar mu dagg yitteem yëpp taal otom ànd ak ay nitam ñëw fekk si ñu te mënoon ne ah ñun kat xamaguñu soxna Mariama mii nekkul ci ñun toppul ci suñu ginnaaw wër ñu ba ak si fii ah kooku yaakaar naa jigéen ñi moom tey mën kenn mënatu la dox seen digganteeg Mouhamed moom moo ko waneel boppam soxna Asu Mbay mii nga xam ne man ginnaaw man daanaka mbiri financement yi moom ci loxoom la nekk léeg-léeg da ciy am problème waaye problème du ci mën a ñàkk ndax département boo xam ne toujours jigéen ñi nga xam ne ñooy ay femmes leaders comme jigéen ñii dañuy dégg li ñuy séddale dara ñëwul ci suñ loxo Mariama Touré bëri na ñoo xam ne jàpp nañ ne moom mooy ministre de la femme amul dara loo xam ne dinañ ci boole les femmes leaders tey jii boo gisee jigéen ñu bëri ñu ma amal relation ñëwuñu assisté bis bi ña ngay waaj puukare ña ngay waaj pour dem grand théâtre wane seen bopp te jàpp ñu dara ci département bi lu dul média woote kenn ku ne présenté wu wane wu liggéeyuñu dara ñun nag li ñuy liggéey dañ koo assumer dañ koo xam kenn nekkul suñu ginnaaw kenn mësuñoo financé dara ñun ñooy boole suñu dërëm ak suñu ñaar dërëm def li ñuy def defar lu suñu GIE produit yi yëpp ñi ngi ciy liggéey fenn fu ne ñi ngi fay dem di ko jaay lenn lu ne ñi ngi koy defar ay GIE gi yëpp kenn nekkul seen ginnaaw man bu ma daan xëy di dem jànnatu di plaider jigéen ñi ndax bañ injustice ci kanamu jigéen ñi am na ñu ko fi mën a seede bañ intérêt yi ñu di ko teg ci jigéen ñi mu leen di jural loraange moo tax léegi man dépassé naa capacité dem ci banque di lebloo jigéen ñi dama leen koy sax tere publiquement man dañuy dem débloqué waaye suñuy moyens yi bopp lañ dajale di ko jëf jigéen ñi di leen ko lebal ñuy remboursé képp ku bëgg financement soxna Astou mbay mii soo ko contacté problème mu urgence boo am dina la lebal boo paree nga delluwaat ci sutura te benn problème du la ko jural képp ku bëgg tamit jus wala nga bëgg sànqal wala caagri soo contacté soxna bu mbay dina la dina la dina la ci defaral li nga bëgg ñi ngi nii daal kenn nekkul suñu ginnaaw département bi li muy yaatu yaatu suñu woo woon woote woon woote politique président Pape Diop day yaple wala mu yónnee waaye bañ naa ko ba dama ne waa bokk gis-gis toog leen lii tey defuma ko ngir benn parti damaa tàllal ñëpp loxo ki nga xam ne nag jàpp na ne Touba lu fi waaye def moom la ko defal te mbokkum Sénégal muy Mouhamed Cissé nga xam ne puukare taxu koo jug moom moo ñu wuy si Mouhamed loo soobati waa femme leader dinañ ci dugal seen loxo yow ku la dóorati ñun ñooy xeex. salaamaaleykum ñoo ngi nuyu mbooloo mi nga xam ne yéen lañ fi fekk ñëpp ah, di ko jiital di ci jiital kilifa bi toog suñu wet di imam imam ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax ak sëñ abo mi nga xamante ni moo fi teew. sëñ Abo Touré ñoo ngi lay ziar bu baax a baax ndax ndaje murit moom fu ñu daje rek ah euh, ka fay nekk kilifa gën a jege ci sëriñ bi rek mooy kilifa ñëpp ñoo ngi lay ziar bu baax a baax a baax ah soxna Mariama yow tamit vraiment euh, ñoo ngi lay sant bu baax euh, di rafetlu jataay bii di jéggulu tamit xaw a yàkkamti gi nga xam ni feeñ na ci suñu toogaay. dafa tolloog ni rek dafa am ku bokk ci ñun koo xam ni ku ñu xam-xam nga ko muy Modou Sall nay leer am benn programme bu muy def waaye nag yow xam sa njàmbaarte ak sa détermination ak sa taxawaay ci dëkk bi moo tax bi information bi ñëwee ci man man leen quoi que ce dinaa fi jaar ndax ñu mel ni yéen nit ñi dañu war a leen bàyyi xel loo leen nekk ñu jàppale leen ci pour ngeen gën a ñeme parce wax dëgg yàlla li démb laa ko yëg waaye moom dama ko xam mu jaare ci suma benn xarit boo xam ne dañuy waxtaan lu bari mu di ma wax ay jikko ak ay qualité yu nekk ci moom waaye am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla su suñu ma oowoon du ma ñëw mais moom su ma oowee dinaa ñëw ndax lu muy def yàlla rek moo tax mu di ko def ak bëgg a jàppale goxam bi mu dëkk ndax doomu kilifa la setu kilifa la bu ko neexoon day toog fi mu toog rek li ko fi war a fekk dina ko fekk parce que seen maam liggéey na ko waaye mu ne loolu rek doyul mbir soo ci bokkee da nga ciy wane sa bopp ca mi ngi ko ciy wane. ah soxna Mariama ñun daal li ñu lay wax mooy euh, lépp loo nekkati bu soobee suñ borom li ñu ci man dinañ ko ci def ca it euh, ragal féete day xañ a wërsëg ñun coalition Benno Bokk Yaakaar lañ bokk di jàppale son excellence président Macky Sall jàppale gi ñu koy jàppale nag séentu wuñ ci dara lu dul gis ni mu ngi liggéey dëkk bi ndax man ñëpp xam nañu parti réew mi laa bokk bu sa Seck waaye coow yi ci am fan yi suma diggante ak moom yéen ñëpp ñu ci bari ñi suivre réseaux sociaux ñu koy gis parce que man gëm-gëm bi ma am mooy ku liggéey Sénégal rek képp koo xam ne yaa ngi liggéey Sénégal soo ma oowee dinaa ñëw soo gestoo di nga ma gis man ci loolu laa nekk di wax ne nag yéen soxna yi ah lii tax ñu gën leen a mën a jàppale soxna Mariama mii am na fu mu nekk yéen tamit nag da ngeen ko ciy jàppale waaye ñun waa Touba ñoo ngi am benn baat bu ñu commencé di tudd dañ ko war a moyte quoi mooy jigéen ñi Touba moom ku ñëw ñu lalal la basan yéen moom xam naa ne bokku leen ci parce que seen seen leader bii du genre boobu mais da ngeen di fexe ba yéen tamit seen xarit yeeg ñeneen ñi ngeen convaincre leen ci loolu ndax euh, état kenn du ko xeex ndax boo ko xeexee bu la koñee li nga bëgg a defar du sotti loolu da ngeen ci réfléchir bàyyi ci xel ca moytu ñi nga xam ni dañ leen influencer ci leneen man Macky Sall mosuma ko teg bët mais waxi sëñ taxaa dama doy ci moom du leneen ca it bu dee liggéey mi ngi liggéey parce que man génn naa dox naa gis naa lu bare bare bare bare bare di leen wax ne daal soxna Mariama mi yéen ñi dëkk ak moom gën leen ko jàpp bu baax a baax a baax a baax ndax am ku mel ni moom nag dëgg-dëgg yombul département bi a ah jigéen ñi bari nañ fi ñi fiy woote woo femme leader tamit bari nañ fi mais nag a ah ndaje moo gis am na am na jàppal diw ah moom mi moom jàmbaar la parce que sama benn xarit bu tudd Seex si la bu nekk ci Espagne daf maa wax a wax a wax a wax ci yow ba Euh, euh, gis bi dégg bi gënal ma gis bi ci ay wax yu rafet vraiment yu ma wax ci yow moo tax bi nga ma woowee rek man la incha allah dinaa ñëw ca xam ni def lu baax rek moo am solo ndax am na leneen lu ma doon dégg soo ma owee dama naan waaw mais soo coupé ma fàtte ko ñoo ngi sant bu baax di jégalu nag di jégalu yàkkamti gi nga xam ne mi ngi feeñ ci suñuy kàddu ñoo ngi leen di sant yéen ñëpp jërë ngeen jëf.